jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontante ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa su ne mbokk yi saa yu ngeen gisee ñaari xar kanam yi génn xam ngeen ni duñu waxtaan ci dara lu dul wàllu làmb ndax ku ne xam ne ni fi mu toll nii àdduna bi doon na loo xamante ni jaxasoo na ndax balaa bii nga xamante ni wàcc na ci àdduna gépp ñuy ñaan yàlla suñu borom musal ñu ci musal ci mboolem jullit ñi mu dal ci réew mi ak yeneen réew yëpp yàlla na suñu boroom saafara ba ñu jugaat delluwaat ci seen activité ndax wolof daf na lu dul jàmm jàmm moo ko gën sëriñ Bas ma lay nuyu euh, di la siyaar di la màggal te xam naa ne namm naa la loolu waaye namm gooma namm namm naa la Boucarou sëriñ Bas maa ngi lay nuyu. Baye Diéli maa ngi lay fay euh, di la jaajëfal bu baax. Hmm. la wax rek balaa ñoo tàmbale. li tey day wax daan na ma soree. waaw un yi. Euh, xanaa bi da ngaa daw say un mètre. distance bi moom kenn du moom. ndeysaan loolu sama sama warugal la. ndeysaan maa ngi nuyu di mbokki internet yi ñuy suivre ci wasaare lamb. Mm. ak fépp fu nit mën di nekk ci àdduna wërngal këpp ñu ngi lay nuyu di mm. leen masawu coono leen baalu àq. Mm. ci di aussi. ñaanal jàmm ñëpp ci feebar bi nga xam ne nii procès nga ko muy coronavirus bi. Mm-hmm. ñaan rek euh, borom bi nga xam ne moom mooy tegi jàngoro moom moo koy teggi. Mm-hmm. yal na ko tegg ci ni mu gën a gaawee. kenn bañ cee loolu. amiin donc euh, foofu wax la ne namm naa la comme ni nga ma la gëj la yoo gisee sëñ Bas te xew-xewu làmb gëj laa ab ah waaye waaw ndeysaan gis nga fépp te fépp foo dem rek doomu réewu Sénégal mu nga fa moo xam muy Italie Espagne Angleterre. mu doon jàngoro boo xamante ni rawatina waa sunu euh, wasaare làmb ñuy sensibiliser ñëpp rek ci li nga xamante ni mooy fagaru wolof tam ne fagarukat moo gën faju sëñ Bas noo gisee loolu. waaw xam nga hmm. ci borom toog. Hmm. ñun fagaru ci la ñu war a dëkk. Hmm. ci la ñu sax. parce que suñu diine ji ñu nekk muy diine islam. boo xoolee mesure de prévention yi ñu teg nii. Hmm. diine ji da cee jiitu. Hmm. muy wàllu set wàllu sellal euh, gàttal sa tànk. Hmm. xam nga ak yenn yu bëri yi nga xam ne daal jël nañ ko boo xoolee diine presque yàgg nañu koo sant. kon loolu mën naa ne ànd la boo xam ne ñu nga ca woon donc bu nu ko wàccee rek beneen ànd buñ dem nañu fekk boromam toog ca. donc lii ñu jël comme ay mesures dañu koy respecté comme ni ko àdduna bi yëpp. respecté wala ñenn ci àdduna bi yëpp respecté parce que bu ñu ko defee suñu bopp lañ ko defal. Mm-hmm. mucc aussi euh, balaa nga muccal ñenn ñi yow yaa njëkk mucc. Mm-hmm. ñu bàyyi ci xel. Mm-hmm. ñu bàyyi waaye Serigne Bass ku ne xam na ni dañuy waxtaan ci làmb léegi. waaye ba tey du ma du ma jug ak yow ci jàngoro bi nga xamante ne mooy actualité bi ba tey. ndax euh, tey am na lu xew. ñu ne Sénégal fi mu toll nii euh, dafa am couvre-feu couvre-feu à partir de vingt heures lay commencer jusqu'à six heures du matin am na ci ñoo xamante ni xamuñu ko comme dernière génération bi nga xamante ni dañoo mujjee juddu ñu ci mel ni sama classe gi nga xam ni alkaati dañ leen di dàq ñu jàppee ko ay fo te alors que lii du mbiru fo lan nga leen di wax ñoom xale yooyu. waaw li ci njëkk mooy ñu xam euh, couvre-feu bi. parce que Sénégal bi ñuy nekk wala àdduna bi ñuy nekk ci jàmm ak salaam amul kenn ku ñemee jël ab dogal ne vingt bu jotee na ñëpp dugg seen i kër. Mhm. ku ci nekk yaa ngi doon dox ba heure la neex. Mhm. fatu mais cas de force majeure muy jàngoro ji nga xam ne lëpp na àdduna. Mhm. donc jàngoro jooju moo ñu imposé à ce ñu. ñu fatu vingt mais du gouvernement bi wala keneen ak keneen moo ñu ko imposé certes ci seen làmmiñ la jógee mais jàngoro ji moo ñu ko imposé. Mm-hmm. parce que loolu noonu fatu vingt heures ji bul jàpp ne yow boo ko defee. Mm-hmm. police nga koy defal wala gendarmerie nga koy defal. wala mm-hmm. keneen ak keneen nga koy defal sa bopp nga koy defal. parce que comme ne nañ bëgguñu jàngoro ji law te ku ci nekk war nga jël say mesures ba bu affaire bi di lawit yow bu fekkee nga nekk sa kër nga mën ci mucc. bu ñu la nee fàttali vingt heures jàpp naa ne sa wër gu yaram la. ñun ñoo ko war a sàkkul suñu bopp beneen bi mooy. Euh, certes ñenn ñi jeu de cascade lañ ko lañ ko foog. wala mën naa ne sax euh, dóor dàqe. Hmm. làmbi golo ak genre yooyu moom la ko hmm. ñenn ñi jàpp parce gëj a hmm. boo gëjee foog ba gis ñëpp toog seen i kër amatoo lu def. da jéem a foog ci bëri loolu lañ ko jàppee alors que demee noonu. tey ñi ñu ñu toog leen ñooñu suñu wër-gu-yaram la ñu bëgg ñoom aussi wër-gu-yaram la ñuy sàkku. boo nekkee ci mbedd bi doo mucc te du ñeneen ñi duñu mucc. li ci gën mooy ku ci nekk toog sa kër comme ni ko sàkkoo parce du gouvernement bi moom moo ñu ko sant encore une fois mais jàngoro ji moom hmm. jërëjëf sëñ Basirou mooy la sama yaay doon wax rek weer reer tëdd moom chaque fois mooy wàllu reer doxi boo reeree tëdd moom yaa ngi ci jàmm waaye sëñ Bas tey la lundi 30 mars 2020 euh, journal bii di sunu làmb mu ngi tiitre ci ki nga xamante ni mooy Aliou Ba Aliou Ba nag mag la ci bàcc seeraas écurie Bathie Seras moom mooy entraîneur bi Aliou Ba mu ngi wax ci li nga xamante ni mooy radiation bi nga xamante ni moo xew ci diggante si Ndour ak waa CNG bi sëñ Bas dañ lay bàyyi nga nuyoo ak wax boobu noo ko gisee ak Aliou li mu ci wax waaw bàyyi jële xanaa Aliou Ba ñu nuyu ko passage rek hmm. euh, nuyu waa Seras gépp hmm. nuyu waale aussi structure bi mu bokk muy ARELS hmm. l'association des responsables des écuries écoles de lutte du Sénégal euh, président Malick jiite ko ñu leen di nuyu bu baax. Hmm. donc euh, Aliou Ba moom wax na ci problème boo xamante ni ñëpp a ci wax presque. Hmm. mu nekk problème boo xamante ne nii bi làmb ji di waaj a pause ba léegi ci la nit ñi nekk. Hmm. muy coowal arbitre yi ak CNG. Euh, mën naa ne sax nekkul coow parce que coow. mooy ay kàddu di jóge ci yow di dal ci man ay kàddu di jóge ci man di dal ci yow. coow amul décision bu CNG jël la ñenn ñi di ko contesté donc. du coow. comprendre fu mm-hmm, mm-hmm. mbir la boo xamante ne nii bi mu amee CNG jël na ay décision fi mu ne nii képp ku ciy wax dangay ngay décision bi CNG jël. Mm-hmm. est-ce que d'accord nga ci wala d'accord ci. te waa làmb mën naa ne seen mbir la que seen kaw la daal. tey Aliou Ba li mu expliqué nii diggante CNG ak euh, arbitre yi. muy décision bi nga xam ne jël nañ ko radier Sitor. ñoom Babacar. ñu aj leen mm-hmm. ñoom Aboubacry euh, ñoom ñëpp ñu aj leen loolu lay wax ne teguñu ko ci yoon mm-hmm. àndu ci àndu ci waaw comme ni ko ñeneen ñu ci bari ñàkk àndee très bien mm-hmm. parce que moom li mu jàpp mooy tey ànd boo xamante ni nii yàgg na diggante CNG ak euh, arbitre yi ànd plus de vingt ans euh, nga xam ne lu ci bari liggéey nañu ko seen biir ak respect bi nga xam ne nii arbitre yi mérito nañ ko donc moom gisul fenn foo xamante ni war nañ leen raje wala war nañoo jël yenn sanction yi di ko teg seen kaw. Hmm. donc ay mbir la yoo xamante ne nii dañ ko war a waxtaane ci biir waxtaan trouver solution mais pas ñu jël di raje ñii di at ñii loolu làmb moo ci perte. Hmm. gis-gis boobu la ci am. Hmm. Euh, mais aussi ni mu faralee arbitre yi ci benn côté bi noonu la leen a aussi ci beneen côté bi. parce que rafet na wut ñu bàyyi ba vendredi. ñu ne dañuy dem grève di ko Aliou ba loolu la xam ne nee na dañu waroon a def comme li ñëpp wax muy euh, préavis de grève bi nga xam ne waroon nañ ko déposer bu ñu ko déposer yëgal ne dañuy grève mm. avant bu ko defee CNG buy jël mu jël ay matuwaay bu ñuy def médiation ñu def médiation mais moom loolu xam ne ci mm-hmm. Ba loolu la ba tey sëñ Bass génnuñu ci famille Aliou Ba parce que ku wax Aliou Ba xam ne écrit bi mu nekk leader ba mooy Bathie Seras Bathie Seras ba tey suñu làmb da koo def ci xët bi moom it di di wax ni Bathie Seras di wax ni làmb dañ ko abandonné est-ce que làmb ñoo abandonné Bathie Seras wala Bathie Seras moo abandonné làmb. waaw euh, non man dama koy rejoindre ci ay kàddoom. Mm-hmm. waaw. dama koy rejoindre ci moo abandonné Bathie mm-hmm. Mm-hmm. Euh, bi muy waxee. foofu laay comprendre. moom moo abandonné làmb parce que xam tax. gis nga ji nit ki ci lépp looy yëngu. Mhm. boo demee ba toll ci ci ay tolof tolof wala nga toll ci ci benn niveau boo xamante ni mënatoo def ay performance mhm. euh, mbir moo noonu da laa war a war a wallu. Mhm. laa war a jàppale. malheureusement ñun suñu sport bii di làmb. ñu ci bëri dem nañ ba dugg ci même situation que Bathie Seras mais dañuy obligé quitter làmb ji carrément parce que làmb dootu leen tàllal loxo. donc sport bi. waroon na ñëw fexe def de telle sorte que tey am na yenn situation yooyu toll làmb dana la mën a tàllal loxo. Hmm. Euh, moom laa bëgg expliquer ci kanam. Hmm. parce que tey ku ci mel ni Bathie Seras nga xam ne génération bi mu fi nekk noonu lu ne def na ko ci làmb ay jamono boo nee Bathie Seras ak Jos Stade mën naa ne ampleur bi mu amoon. bokk na ci li gënoon a dundaloo nit ñi la. seen première tàkkusaan ba stade Demba Diop fa la ma fekk. Mm-hmm. ba ko bàyyi Seras di dóor bu daanu. deuxième ba fa la ma fekkaat ba ko sos di daanu si. mais xoolal niveau boobu noonu. bi ah, ah. bu ñu jógee. Mm-hmm. mbooloo ma daan topp Siteu. ñoo daan topp bàyyi Seras. Mm-hmm. ba pare mu nekk mbër moo xamante ni teewul bëri. mën na xeex am na fit. te aussi ci côté ambiance day joxe li mu am ba mu jeex tàkk ci hmm, hmm. kon kooku boo xoolee certes ku complet amut mais li ko teree complet bariwut hmm. genre nit ñu mel noonu tey bu ñu demee ba toll ci yenn situation yi làmb wax na leen a tàllal di xam seen état de santé di xam fan lañ toll ci entraînement di xam ndax ñoom bàyyi nañ làmb wala bàyyi wuñ découragé nañ wala découragé wuñ loolu ñun reporter yi en premier lieu bu ñu ko defee ñi nekk ci làmb danañ xam ne am mbër mii kat mu ngi activé wu ba léegi ci làmb. Mhm. promoteur yi duñ ko fàtte amateur yi ñu ko fàtte mais loolu dana ko may sens à que tey bu ñuy tëggu combat ñu mën ko cee boole wala leneen ak leneen dana tax aussi yenn xale yi nga xam ne ñu ngi fii jéem leen a def ay yéegukaay jéem leen a laaj. Mhm. jaar si ñoom yéeg ci kaw wala déet. Mhm. mais buñ leen bàyyee ñu suuf kenn xamatu leen kenn déggatu leen rek. ñoom dañuy mujj yàlla ci situation bi ñu nekk. donc hmm. reporter yi ñoo ci jiitu. Hmm. promoteurs yi door cee topp. Hmm. parce que euh, c' est normal tey yow bailleur bi nga xam ne ni secteur privé nga ne da ngay dugal sa xaalis pour am loo ci gagné nga tëgg ay mbër yu populaire. mais aussi boo tëggee ay mbër yu populaire ci grand combat yeneen combat yi nga jéem a xool ñi nga xamante ni ñu ngi ci situation bu difficile. nga def leen ay combat spécial fexe leen a remonter la moral fexe leen a indiwaat loolu. promoteur bi boo ciy waslaam parce que nit ki aussi lépp loo nekk rek di ci jariñu boo cay root dangaa war di ca def aussi mhm. pour mu jëm ca kanam beneen bi mooy man ñi nga xamante ni tey ñu ngi ci làmb mais ñooñu aussi ni ñuy def médiation bu problème amee ñu daw dem waxtaan ak CNG daw dem waxtaan ak arbitre donc aussi war nañ buñ toogee gisatuñu mbër xamuñ ci lan la ne ñu sol seen daal dem seeti mbër ma ba xam ci lan la nekk. dëgg la ne. dëgg la sport la ko war a delloo jukkal. dëgg la bu fekkee ne mbër bi déggatuñu ko xamatul ci lan la nekk. ñoom hmm. xool ba xam ndax kii baa jàmm la wala déet. gëstu ko gëstu ko. Hmm. si mag ñi ñu ngi koy xaar ci dëgg la buñ ko doon def. Hmm. yi nga xam ne ñu ngi ci situation duñu ko sentir bu baax même buñ amul combat sax.

mu jeex. mu jeex mhm. mhm. ba pay ba tey dafa am koo xamante ni dafa mel ni bàcc seeraas teg na ko bët. muy Diène Kairé. Euh, ndax papa ji bëri na ak bàcc seeraas bàcc seeraas daan ko. Mhm. maa ngi fàttali ko seen jàkkaarloo bu njëkk bi ñuy def Diène Kairé daa ñëw nuyu ñëpp ñëw ba ci bàcc seeraas dee ko ne ko bis boo daanee sama papa dinaa la daan. keroog maa ngi fàttali ko Père Ngagne Diagne ne bàcc seeraas xale bi wax na la wax bu am solo mais dafa mel ni loolu dafa ñëwaat mais Diène Kaïré est-ce jàppul ni dépassé na bàcc seeraas mi daanoon papaam. ci làmb Diène Kaïré mënut a dépassé bàcc seeraas. Mhm. gis nga ji làmb bu dee doxee noonu rek. Mhm. ñun bu ñëboo jéem koo sàkkal pexe. Mhm. xam ne du sport bu bu baax. sport boo xamante ne nii malgré performance yoo fi mën di def malgré parcours boo fi mën di def. Hmm. dañu xëy un bon jour rek yow nga commencé jëm mag booy dépassé la loolu loolu moom sport boo xamante ni sport bu ñuy jël jàppee comme référence la. Hmm. parce que tey quoi qu'on puisse dire Diène lu mu mën di def ci làmb. Hmm. mën a gut a weesu Bathie Seras parce que Bathie Seras période am. da ko marqué dafa marqué empreinte am ba mu bokk ci génération bi nga xamante ni tey buñ tuddee génération boobu tudd ko. Mhm. kon moom def na warugar. Diène mhm. Kaïré moom aussi génération bi mu bokk liggéey na ci liggéey boo xamante ni ku ko ku tudd génération bi tudd ko. Mhm. donc na xool ne liggéey bi mu commencé def nii liggéey bu mel noonu la Bathie Seras defoon au temps ba mën a bëri ak papaam ba daan ko donc certes plan de carrière day am kii laay bëreel parce que fii laa bëgg a jaar ak lii lii mën na am loolu moo ko teggiloo Bathie Seras. mais jàpp ma ne. dafay def lu Bathie Seras def ko. Hmm. au contraire Bathie Seras moo fi def loo xamante ne nii tey Diène Kaïré def ko. Hmm. mu ngi ci carrière nag. ñu hmm. koy ñaanal yàlla. mu sut Bathie Seras sut keneen ku dul Bathie Seras. mais instant bi mënut a bañ Bathie Seras parce que dama ko gën palmarès wala dama ko gën carrière déedéet. plan de rek moo leen mën a wutale man fii laa bëgg a jaar li mooy samay objectif. fii laa bëgg a jaar ñii laa bëgg a bëreel ba àgg fi bëgg a a loolu loolu loolu la demee dégg ngeen li nga xamante ni sëñ Bas moom la wax bu waxee rek nga xam ne macha allah maîtriser na làmb ji te làmb dañ ko namoon ñu ñëwaat ci keneen ki nga xamante ni mooy soq. sëñ Bas sëñ soq am na lu mu wax ci diggante ma euh, combat ak gàmmu géey bi euh, la mu demee soq lu mu ci wax. waaw soq euh, li muy jooy mën naa ne moom la bari di jooy. Hmm. que ça soit soq wala gàmmu géey. Hmm. ak yeneen i mbër ku ci mel ni Ameth Deme ku ci hmm. mel ni Valdo. yeneen i mbër yi nga xam ne jàppoon nañu seen combat. ñu dem ba mu des benn fan. yàlla indi xew-xew bii nii di coronavirus bi nga xam ne tax na ñu lépp lu yëngu-yëngu. donc soq moom li mu wax mooy préparation. ak li mu ci jotoon a financé. ñu reporté combat reporté mhm. donc da doon dépense sans mu calculer noonu sax la ko doon noonu la ko tuddee. Mhm. c'était pas dépense sans calculer. Mhm. maanaam mbër yëpp la nag. amul calcul nga teg benn budget ne lii laay financé ci combat bi mbër mënta maîtriser li koy financé ci combat. Hmm. da ngay def rek. Hmm. pour am ndam mën nga dem sax ba feyu combat bi ñu ne suba la combat bi. Hmm. am leneen luñ la digtal nga daw dem dugalaat ci xaalis bu jeex. loolu day am donc mënuñu ko maîtriser certes sotti na ci lu baree bare bari ci wàllu koom ci kopparam. mais aussi mën nañ ne calamité naturelle la mooy mbir boo xamante ni tey promoteur bi sababu ko gouvernement bi sababu ko euh, gàmmu gi sababu ko moom sababu. mais ci borom bi la jógee. Hmm. donc calamité naturelle moom même seen seen texte yi sax dañ ko ciy bind. Hmm. Euh, report komba bokk na ci tey calamité naturelle. Hmm. mooy comme jàngoro ji am. wala taw woo xamante ne nii tey taw na yàqu lu bari wala ngalaw wala leneen loo xam ne ci borom bi la jógee. booba boobaa aussi euh, mbër yi duñ leen dédommagé. mbër yi dañuy dese contrat ba léegi nii ñoom xam nañ bu baax affaire ni ñu demee. contrat yi comprendre nañ donc parce que du sababu promoteur bi. Mhm. mais ci discussion seen diggante ak promoteur bi xëy na mën nañoo waxtaan. ba mhm. trouver terrain nga xam ne promoteur bi dina jéem a am fu mu leen comprendre ñoom ñu xool fu ñu ko comprendre. Mhm. parce que lee ñoom sababuñ ko mais aussi promoteur bi sababu donc mbir la boo xamante ni certes sotti nañ ci seen xaalis yàq nañ ci seen xaalis mais dañ leen di ñaanal fi ñu amee woon loolu ba def ko ci làmb ñu amee waat foofu lu ëpp loolu. ba koo préparer comme ni ñu ko ni ñu Hmm. dafa bett ñëpp te jaam wolof def na jaam ak pexem yàlla ak dogalam kon dogalu suñu borom la nañ ko xamee noonu kenn ki tamit arbitre la arbitre boo xamante ni moom it mu ngi tudd pool euh, Paul nan. Paul Marie Guèye Diouf mu nga nekk ca maatam Paul moom it mu ngi xamale ci li nga xamante ni moo xew ci suspendre bi ñu suspendre arbitre yi moom lu mu ci wax. waaw moom xam nga seen naataango la. Hmm. parce de grade régional la. Hmm. Euh, nekk professeur EPS nekk foofee ca Matam. moom aussi boo xoolee euh, fi mu teg tànkam mooy fi ay naataangoom teg seen i tànk. Hmm. mais moom li mu gën a ñaawlu ci côté bi mu ñëwee mooy CNG dafa jalgati règlement yi. Hmm. règlement généraux yi nga xam ne tey moom la CNG am sukkandiku ci di ci àtte dañu ko jalgati ñoom seen jëmm bopp. Hmm. parce que mënut a comprendre. Euh, Aline Seyde ak ñaq jariñu tey règlement généro yi article 44 dafa ne. tey bu problème amee ci làmb ñoo xam ne nii CNG moo leen jaboote. ku mu ci mënti nekk CNG article 44 da ko imposer à ce que mu woo leen entendre leen. Mhm. ki leen di entendre moom mooy commission de discipline de règlement et de discipline bi. Mhm. di tëglu ñu wax. Mhm. ba noppi ñu dem soog a jël ay décision mais loolu amul ci kaawu Alexey do ak ñàkk jëriñ. parce que dañoo bëre dimanche wala combat bi dafa am dimanche problème am ci. ñu xëy lundi teg ay sanctions. ñaq jariñu hmm. aj ko aj écuréem ba pare téere li kaa Alioune Seye 2 tamit dañ ko sanctionné moom it téere li kaa très bien hmm. six mois téere li kaa hmm. donc loolu ay décision la yoo xamante ni ñoom bi ñu ko defee sukkandiku wuñu ci règlement loolu la Paul wax parce que bu ñu sukkandiku woon ci règlement danañ woo Alioune Seye 2 entendre ko woo ñaq jariñu entendre ko bu paree ñu jël ay décision te article boobu mu énuméré di article 44 euh, ci règlement généraux yi aussi loolu mën di am ci problème boo xam ne am na ci làmb te ñooñu CNG moo leen jaboote CNG da leen war a woo entendre leen hmm. moo leen di woo entendre leen ba pare ñu soog a jël ay décision mais hmm. moo tax mu ne CNG ci boppam moo njëkk a jalgati règlement yi. Hmm. donc te aussi ñoom dañuy jàppale. parce que seen kaw la dala ah. seen kaw la dal ñoom arbitre yëpp. mbir la boo xamante ni ñu ngi koy lu ñu ngi ñaawlu aussi. mesures yi nga xam ne nii CNG jël na ko wala décision yi nga xam ne CNG jël na ko jëmale ko ci ñoom arbitre mhm. léegi nag sëñ Bass ñuy wax ci ki nga xamante ne mooy Alioune Seye ak ñàkk jariñu ndax Alioune Seye depuis combat ba tey moom it euh, affaire bi dal na ci kawam euh, gis nañ ni mu demee ñu ci bari keroog Baye Paul bi ñu ko seetee wax na ci sax xamal ni euh, ñàkk jariñu yëgul tinul Alioune Seye noonu mais lu lu xew la Alioune Seye mu ngi ba tey may wax ak yow ni jotul li nga xamante ne mooy reliquat ñaq jariñu moom waxu ci yooyu ci yàbbiwu ci. waaw jili foofu aussi dañuy masawu mbëri. Mm-hmm. parce que metti na ba fa métti bi yem ndax euh, làmb ñoom ni ñu koy pratiquer. Mm-hmm. franchement mënu ci mënuñu ci am xaalis bu ñu denc. Mm-hmm. au ay bor la ñu ciy amee. ñoom ñëpp nag parce que combat comme wax naa ko sànq dañuy dépenser sans ñu calculer te mënuñoo calculer sax. loolu métit la boo xamante ni nii ñoom rek ñoom ñoo ko xam rawatina nag contrat euh, reliquat bi nga xam ne war nga see jot te ko ba ci gën a yéeme. Hmm. bi nga xam ne war nga koo jot. yaakaare ko jot ko. pour fay ci say bor. te jotoo ci. bëri dañuy xam ne ah man kat war naa jot benn huit cent mille reliquat. Hmm. am naa ko ma mën a aal deux cent mille pour ma def ci combat bi kii mën na maa aal nangam kii mën na maa aal nangam sëriñ bi avance naa ko nangam desel ko nangam. Hmm. donc somme ñuy dajale loolu dépense yooyu nga xam ne def nañ ko ba pare te xaalis ñëwagul mooy doon seen reliquat bi day ñu def ko ci ba pare di yaakaar leneen luñ leen may. pour ñu hmm. seen i bor. Hmm. kooku boo téyee reliquat ko. parce que dugal nga ko ci situation yoo xamante ne nii yow sax doo comprendre dayo bi nga xam ne nii mën na ko. mën nañ cee poursuivre mbër yóbbu ko ci yóbbu ko ci yoon. Mm-hmm. àggaguñu fa maar day taali mais bu ñu continuer ci rythme bi mën nañ ca àgg. Mm-hmm. parce que am na ci som yoo xam ne mën nga ko yore ni du la ko baal. Mm-hmm. loolu moom nay nay nay leer ak yeneen ak yeneen ak yeneen. donc ñoom seen reliquats yooyu xëy na dépensé woon nañu ko ba mu jeex. li ñuy li ñuy naqarlu mooy téye ga ñu téye reliquats yi parce que CNG man pour man. waroon na am beneen beneen jumtuwaay bu mu utiliser boo xam ne dana mën a permettre tey mu teg leen ay daan. sans autant que mu téye seen i reliquat bokk na ci téye gu muy téye seen licence bokk na ci aj gum leen di aj hmm. ak yeneen ñu bari yoo xamante ni tey mën nañ leen koo xaj mais pas parce que reliquat bi moom euh, bu ñu xamoon coono yi nga xamante ni bëri yaa ngi koy daj seen reliquat jeex tàkk avant muy si hmm. boobaa danañ dawal ma yërmande ñu leen di ñaan aussi ñu ñu ñu ñu ñuy xoole foofu ñuy xalaatee foofu parce que mbër sonn nañ làmb ji amuñu ci dara ñoom liñ ci am mooy ndam Mhm. ndam lañ ci wër buñ ci amee ndam ñoom pour ñoom am nañ ci àdduna la ci gërëm. Mhm. donc loolu moom franchement euh, ñu ngi koy ñaan seen mhm. te aussi jii li décision la yoo xamante ne nii man bu ma sañoon. Euh, danañ ko revoir danañ ko xoolaat parce que tey Alioune Seye 2 di ñàkk jariñu. situation bi métti na ci ñoom méttiwaay boo xamante ne nii am na ñoo xam ne duñu ay coupable te sanction bi dal na seen kaw. ñàkk jariñu écurie ba am na ñoo xam ne nii jour boobu ñëwuñu làmb ñëwuñu sax làmb ja am na ci ñoo xam ne amoon nañ contrat mm-hmm. ñëwuñu ñu ngi entraîné mm-hmm. di waajal seen bés xeer ba mujj na daan seen kaw moom ci boppam nga xam ne comprendre mën naa ne victime la ci mm-hmm. sanction ba dal na ci kaw Alioune yi nga xam ne lu ne daj na ko ci combat am préparé na ko ànd ak ay mbokkam ñëw gis nga moom aussi mën naa ne quelque part victime la ci. Mm-hmm. donc mbir la yoo xamante ne nii li gënoon mooy ñu xool source bi fan la jógee après ñu jël ay sanctions sanctions yoo xamante ne nii dana tax tey ñu ci bëri jël ci ay ay mais nii ñu ko defee nii dañoo bëggoon pour avertir ñëpp alerter nit ñi xam ne leen ne problème bu mel nii bu amee CNG du am demi-mesure day xëy mm-hmm. rek joxe décision. Mm-hmm. donc nit ñi bàyyi violence beeg yooyu. loolu lañ ci jublu woon mais aussi ni ñu ko defee moom franchement metti na. parce que moom. fi hmm. wax ji am na solo sëñ Bass ñu ñëwaat ba tey ci suñu làmb bi di xamal mbër yi nga xamante ni fi mu toll nii ñu ngi entraîné fan la ñuy entraîné ku ci mel ni Boy Faye euh, Séeri Sira moom it am na lu ko suñu làmb laaj mu waxtaan ceeg ñoom ci wàllu entraînement beeg yooyu am na lu mu ci wax ñoom mbër yi nga xamante ni euh, bërki démb rek maa ngi koy tooñ naan ko champion yére bi gën naa tooy mu naan ma dafa gën. waaye daa mel ni xaftaan bi gën naa tooy gafaga gi amatul dara Kor Sira moomu di Boy Faye. waaw euh, Boy Faye. Mhm. mën naa ne mbër yëpp sax képp koo xam ne ni am nga licence. Mhm. sans bii situation oblige mën naa ne àgguñu ci confinement. Mhm. mais ñoom confiné nañ seen bopp. parce que ci salle musculation la ñuy ci ay école de lutte la ñuy entraîner. de suite. mais instant bii nii temps bi ni mu demee euh, permettre leen pour ñu mën a génn. Mhm. entraîner mhm. donc euh, loolu da leen di obliger rek pour ñu toog toogaay bi nag ci athlète du toog sa kër di xëy di lekk di naan nga ne noo situation fi mu toll la tere na du génn wala mënatuñoo entraîner mënatuñoo regrouper affaire yooyu noonu naa toog saali tëj nañ affaire yooyu boo ko defee en tant que athlète. Mhm. say morom dañ lay raw parce que euh, période bii nii jiile occasion la boo xamante Mm-hmm. boo ko ratee rek en tant que du ma ne mbër sax mais képp ku mu nekk tey ci kaw suuf lii ñëw di situation bu tegu suñu kaw occasion la ci ñun parce que ji li mbir bu ñëwee rek da nga koy xool au sens positif. Mm-hmm. nga bañ koo nga bañ koo nga bañ koo bañ koo jàppee loo xamante ni dafa ñëw pour lor la certes loraangee ngi ci mais war nañ koy xool ci beneen côté. Mm-hmm. war ñoo dimbale lu bari mbër yi tey mën nañoo defarwaat. ñi nga xamante ne tey rythme combat yi jàpp na leen wala rythme journée yi jàpp na leen wala leneen ak leneen wala rythme entraînement yi ñu toog xoolaat dressé waat beneen plan de carrière. Mhm. xool li nga xamante ni moom moo nekk seen ginnaaw ak li nekk seen kanam. dem vaar daal mbëri dem vaar. xam nga Balla gàddaay na fi. Uh-huh. ñëw. Uh-huh. nekk nekk au top. nekk au dëgg la. waaw euh, dafa ne reculer pour mieux sauter. mieux sauter instant bi mm-hmm. recul bi pour ñëpp la. Mm-hmm. mais nañ dem vaar xoolaat xam fan la ñuy teg euh, suñuy tànk. Mm-hmm. mbër yi ku ci yaafus danañ la raw parce que nit ñaa ngi seen i kër nag di entraîné xam nga entraînement tey dafa yematut rek ci dem salle wala dem din wala dem feneen ak feneen wala dem école. Mm-hmm. ci application yi ñuy defar nii Play Store boo fa duggee bëri nay application yoo xamante ne nii. Mm-hmm. da nga koy téléchargé sa biir salon ngay toog di entraîné am état de forme bi nga bëgg wala sa biir néeg doo génn sa néeg. état de forme bi nga bëgg. ay hmm. ab domino ngi fi ay appui avant ngi fi ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni sa biir kër nga koy def bu jar nga génn te sa état de forme day gën di yokk sax. Hmm. Hmm. bëri nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. booy fay moom mu ngi entraîné parce que am na quelques matériels ci këram. mais ñeneen ñi ñu ngi leen di invité à ce que ñu dem Play Store installé yenn application yi nga xam ne nii dañ leen di guidé ñu mën a entraîné day mel ni yaa ngi jàkkaarloog sa moniteur mu naan la defal nii defal nii wala nga jàkkaarloog sa coach la defal nga ci gis ay résultats. Hmm. beneen bi mooy jiiri ñun. Hmm. ku nekk na jàngal ci mbir mi. parce que nag comme couvre-feu bi à de vingt hmm. na ay problème yu muy ba nga gëjee toog ak sa waa kër waxtaan ak ñoom. sama yaay de daa kontaan moom. Ah. <laughs> nee na nee ba gis dix ba gis jiile ma ne ko man dix pile ba dugg. trente minutes yi ma dimbalee ko état yeneen trente minutes ba ba jël ko jëfandikoo. mais vie de famille boobu noonu ñu euh. am jiile. bëri na ñoo xamante ni ñàkkoon nañu ko. Mm. am na ñoo xam ne gëj nañoo gis seen i papa. Mm. rythme liggéey bi moo leen jàpp bu ñu xëyee liggéey ngoon ñu wàcc nopp ñu xëyee liggéey ngoon ñu wàcc nopp. Mm. donc rythme boobu moo leen di jàpp ñun aussi chaque jour ñu ngi ci événement yi bu événement bay jàllee yaa nga fee. Mm-hmm. mooy nga ma fi Georges parce que. boo jógee Fatick maa nga fi mu laa jógee fi mu laa la donc rythme yooyu nga xamante ni tey. lii permettre nañu pour ñu toog. xoolaat suñu agenda wala ñu toog xoolaat suñuy doxalin toog waxtaan ak suñuy famille. waxtaan ak mbokk yi ba pare tolloon nañ ci situation boo xamante ni kenn mënut a yar sa doom. suñuy doom wala suñuy rakk wala suñuy jarbaat ci mbedd mi la ñuy yaroo. ci seen i téléphone portable la ñuy yaroo. parce que gisuñu yaay gisuñu papa. ku nekk boo xëyee daw nga wuti. Hmm. mais bii nii fu vingt heures dangay gis sa njaboot dangay ngay mën continuer sàmm nga leen di sàmm tey. Hmm. lu sooxee ci ñoom da koy xam lu nu mel nañ da koy xam. Hmm. lu leen di metti da koy xam lu leen di neex da koy xam ñoom fu ñu toll da koy xam. donc loolu ci côté sens bi ñu koy xoolee mbir la boo xamante ni lu baax la. Euh, beneen bi mooy lii bu bu bu bu jàllee dañ cee war a tirer ay leçons yu bëree bëree bëri. jàngat ci lu bëree bëree xam naa du ma guddal foofu sax. Hmm. parce que tey ñenn ñi ci internet yi war nañoo comprendre réchauffement climatique bii ñuy wax nii. Hmm. lan moo ko waral mooy gaz yi nga xam ne nii tey euh, oto yaa ngi koy dégager. fumée hmm. yi yooyu nga xam ne dem na bay day tàngal jaww ji gis nga nawet heure bi mu doon tàmbali. tàmbaleetul heure boobu. dañ doon am trois mois yoo xam ne day taw. day taw ba dugg ci quatre waaw léegi deux mois ko. am muy taw dëgg la. nawet bi. Mhm. nawet bu ñëw yal na ma yàlla jégal ci wax ji gën a yées morom. bi bi bi bi bi romb. Mhm. donc loolu si ay facteurs la yoo xamante ni dara waralu ko lu dul ñun sur exploitation ba bi nga xam ne ñun ñu ngi koy sur exploité àdduna euh, bi ñu nekk xoolal géej gi jën yu baax mu ko am. Mhm. fi mu ne nii yabooy bi ko. waaw chaque jour napp 24 heures sur 24 mais instant bii nii nga xam ne kenn dematul géej mais jën yi ñu ngi développé. Ah. neef gaa ngi mel ni musiba ci biir géej dëgg la sëñ Bass bilaay mais jur gi ndawal amatul amatul ñu dara bilaay xam ne tabaski day jot problème xar bi am hmm. mais instant bii nii kan moo leen di jëfandikoo ñoom ñu ngi am temps hmm. pour produit waaw hmm. mën a yokk donc loolu aussi lu ci lu ci lu ci am solo la jaww ji aussi lépp luñ doon teg ci ay ay ay ay déchets yoo xamante ni ñu ngi koy kii ci jaww ji essence bi wàññeeku na oto yi daw. Mhm. wàññeeku na usines yi yi fonctionné wàññeeku nañ donc loolu aussi dañ ko xool au sens positif te xam ne lii nii certes lu xaw a metti la mais aussi dana permettre tey bu ñu génnee ci situation bi bu ñu ci beneen situation nit ki lépp lu ko manqué woon. Mhm. dana commencé di ko yombaat. Mhm. da ngay dugg ci géej gi doo daw sax 30 mètres napp li nga bëgg a napp. ak leneen ak leneen donc loolu aussi nañ ko xool tey bëri na ay rabu àll yoo xamante ni dañoo disparaître. boo demee ci àll bi da leen commencé gis léegi boo toogee da ngay dégg picc yi sax. Mhm. normal. Mhm. te riirum oto yeeg yooyu ak yeneen yi da doon dàq ba dootu leen sax dégg. Mhm. géej gi tey boo jegee géej gi da ngay gis ay genre picc géej yoo xamante ni dañuy jege si. da nga leen di gis nga xam ne ñii gëj nga leen a gis ay at. parce que amuñu woon taaw toog tong foofu. ndax bato yeeg gaal yeeg yeneen ak yeneen. mais loolu yëpp permettre na tey environnement bi ngi dundaat. lépp luy mala loo xamante nii raaroon na. Hmm. ñu ngi commencé en temps pour la reproduction. Hmm. loolu aussi mbir la boo xamante ni dañ koy gis au sens positif te xam ne certes lu metti la mais aussi d'une part am na lu bari lu muy lu muy réglé. Hmm. ma lay jaajëfal sëriñ bas wax ji rafet la loolu yàlla nañu yàlla defal jàmm defal ko mboolem jullit ndax lu dul jàmm jàmm ko gën fa muy jóge du fa jeex waaye fa muy jëm du fa doy yàlla ñu ko yàlla defal defal ko mboolemi jullit sëñ bas kontaan trop ci daje bi ndax lamb naa la xam naa ne suñu mbokk internet yi jël lañu waxtu bu bari ci ñoom waaye ñu comprendre ñu ko que nii dañoo gëj a gisante gëj a waxtaan ci làmb tey bu ñu toogee faw ñu jukki yeneen yi jukkiwaat ko jukkiwaat ko mais maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax Serigne Bassirou borom mbég meeg taar bi. waaw Baye Djily maa ngi lay jaajëfal bu baax euh, yow it namoon naa la. maa ngi lay dégg nag mais mënu ma la woon a gis. Mm-hmm. waaw mais comme gis naa la tey moom alhamdulilah. Mm-hmm. Euh, xam naa ñàkkul ne euh, village am na dara. <laughs> ndax tey ma gis la moom xam naa sàq mi dara ngi ci <laughs> mais aussi. Euh, benn bonus la boo xamante ne dama ne woon tey nañ leen ko indi. Mm-hmm. muy euh, livre bii. Mm-hmm. nga xamante ne nii sunu papa moom moo ko moom moo ko bind. Mm-hmm. muy euh, livre boo xamante ne nii mu ngi wax ci parcours Moustapha Guèye. donc ki nga xamante ne nii moom moo ko bind mooy sunu papa jooju mu tuddati sax mooy professeur Ousmane Sène. nekk directeur WARC. nga xam ne moom ci affaire yi recherche yi nii moom lay yëngu. ñu mhm. ngi benn livre xaatim ko ci euh, Mbaye Guèye boobu. Mhm. titre de face maanaam mhm. bi moo nekk nii. disponible na euh, ñun waa jox nañu suñu wàll. livre baa ngi nii ngeen gis nii. xam ne lépp luy parcours Moustapha euh, ci biir donc lii lu am solo la lii aussi dana permettre génération bi nga xam ne nii ñu ngi ñëw ñu mën a xam kan moo nekkoon Mbaye Guèye la fan la jaar fan la mm-hmm. jaar mm-hmm. ak lan moo nekkoon ay qualité mag yooyu ak ñan la dajeel mm-hmm. donc lii lu am solo la te am na yeneen yoo xam ne mu ngi koy préparé ci i champion parce euh, ñoom Manga 2 ñoom Mor Fadam ñeneen lii moom déjà euh, laay tàggatoo sant gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñu bàyyi xel ci wasaare làmb mm. euh, wasaare TV di mm. nuyu ñi nga xam ne ñoom la liggéey bi ku ci mel ni Ousin mm. ñu koy bu baax di ko ziar sama soxna dama yox sa soxna da nga daa ba <laughs> euh, li gars yi waxoon na di jaajëfal Adama <laughs> def na teew man nag li ma jaaxal ci moom mooy nit ñi dañoo tëju ci seen i ñàkk xaalis. di gën a leer gën a leer. ah mooy suñu bi Adama. seet man bi de su ko waxee ba jël. takk na montre bu seer takk na montre bu seer takk chaîne bu seer sol maillot bu seer. Adama borom ah, séeri borom mbuur maa ngi koy siyaar bu baax a baax a baax borom mbuur boobit ñuy jaajëfal bu baax sëñ Bas mbokk yi ñu leen di tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqali ko ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xewu làmb